mbokki internet dale na jàmm seen chaîne youtube les actus des 121 ab xibaar ñu dem foofee ca diwaanu ñu sanc Mabo ci département bu Mbirkilaan ab malade mental di benn waay boo xam ne kon dafa am feebaru xel moom li rek kon moo dugg ci ab teen boobule secours nag bu ñu sukkandikoo ci suñu ay xabaar ñoo ngay xamle ni gannaaw nag yuuxu yi nga xamante ni ab nijaayam dañu koy dégg ci boobule teen doon dem ci ab jardin communautaire gannaaw kon bi nga xamante ni moom nijaayam dañu koy laaj ana lan moo tax mu dugg ci biir teen sëriñ bi def ko wax ne yàlla moo ko woo foofee ba tax na kon moom nijaayam moom lee mu gaaw a def ab alerte ci noonu nag ñii di waa gendarmerie ak sapeur pompier ñoom ñi leen ñu def ab intervention ñu di koy génne ci bublee teen bu buñ sukkandiku nag ba tey jooyu lee xibaar ñoo ngay xam ne ni moom lee rek kon ñàkkula bakkanam waaye nag def am yenn si ay gaañu gaañu yoo xam ne rek kon dañ na koy am gannaaw bi nga xam ne dañ na koy génne ci teen boobulee ñu daal di koy évacuer foofee nag ci hôpital bu Kaffrine ci noonu sax ñoo ngay xam ne ni rek mënuñoo amal ak moom benn enquête gannaaw rek kon mi nga xamante ni moom mi lee dafa am feebaru xel waaye nag liñ ci mën a jàpp ni rek kon jamono jilee danañ koy génne ci teen bi ci naka noonu tamit ñu yóbbu ko foofe ci hôpital bu Kaffrine ngir nag que ñu daal di koy faj ci gaañu gaañu yi nga xam ne daal dina koy am ba nag li beneen xibaar député mi di Guy Marius Sagna daal dinay dem ca diwaanu Pikine gannaaw faatu kii di Seydina Mohamed bi weesu doon jébbal njaalam ci ay waajur kii di Seydina Mohamed Diop gannaaw kon bi nga xamante ni daal dinay ñàkk bakkanam ci naka noonu Guy Marius Sagna mu ngay sàkk kon ci yoon mu def liggéeyam mu ubbi enquête jëm na kon ci faatu jeune ombilé di eh, Mouhamed Diop gannaaw kon bi nga xamante ni police moo ko arrêté woon ci naka noone mu jaaree fa ñàkk bakkanam foofee la ñu yemandi ak yéen ci xibaar yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ngeen bës cloche de notification bi ngir ngeen di mun a jot suñu ay xibaar saa su ne jërë ngeen jëf